ñamu céet wax ji gën a wóor ci yoonu Malik mooy dañ ko sopp waaye àggul ci war doonte sax yonante bi daana ko def ba noppi digle ko ni ki ba mu waxee Abdourahman muy doomi xawf ne ko aw lim walaw bi cheetin defal ñamu céet doonte ab gàtt rek ngay rendi day mel ne kon lu war la ba ñenn ñi wax ne sax bu ko jëkkër ji defut yoon àtte ko ne ko faaw da nga koy def waaye daal yoonu Malik moom li mu wax rek lañ sukkandikoo mooy lu ñu sopp la waaye àggul nag ci war ñamu céet wa nag lu mu doon rek baax na mën naa doon ndawal mën naa doon leneen ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñamu céet woo xam ne boppam shahir rek lu wutoon lu tolloog benn kilo du ko sori moom la ko defoon ak boo xam dafa andi mburoog tàndarma muy ñamu céet wa soxna Zaynab rek ko jotoona rendi ab gàtt kon ñamu céet wa luñ ko def rek mu baax duñu sart ne faaw ndawal lay doon la ñu gën a taamu nag mooy ñu def ko gannaaw ba jëkkër ji wéet rek soxnaam buñ ko defee njëkk wéet mu baax waaye lañ gën a taamu mooy def ko ci gannaaw wéet mu ne nag ku ñu woo ci ñamu céet te ràññeel la ni ki jaar ci saw tur mbaa ñu bind la bataaxel mbaa ñoot la ci yow ndaw war ngaa wuy si kon ku ñu woo noonu rek ci ñamu céet ga te ràññeel ko ba kenn du ko nattable ni moom la ñuy wax war naa ñëw wuy si donte sax dañuy mbooloo mu féete ci wet waaye buñ nee mbooloo sàngam rek daal di mën a takk ne mooy diw ak diw ak diw ni ko buñ nee ñuy nodd ca jumaa ja mbaa ñu ne ilimaani bisu ajjuma fekk ñuy ñaar mbaa ñett mbaa ñu ëpp ko mbaa ñu ne ñuy jàngale ci daara sàngam te ñooñ ñu xam leen mën leen takk lu ñu waxee noo xam ne rek ràññeel na ñooña ñooña war a wuy si woote céet ga ku ñu ne war ngaa wuy si woote ba nag boo wuy si rek mu doy bu ñu sart ne faaw nga lekk ca ñam wa ñëw ga moo war waaye jëmmi lekk ci ñam wa moom doonte wóoroo itam du tax mu war la waaye nag na ko see woo ci ràññeel moom boo wooree itam du tee nga war a ñëw wuy si koor nga nga koor rek nga xam doo mën a lekk ci ñam wa du tee nga war a wuy si moo tax mu ne wa in saa'iman waaye nag bu wuy see te wóorut moom la gën mooy mu lekk ca ñam wa ndax la addis ba ne isaa doon ya ahadukum fal yujib fa in kaana saa'iman fal yusalli wa in kaana muftiran fal fal yàpp xam kenn ci yéen buñ ko wooyee ci ñamu ceet na wuyu bu wooree nga xam ne koor gaatee mënta lekk ci ñam wa na ñaan mooy na ñaanal borom seet baag seet ba su fekkee ne wóorut nag mu ne na lekk na lekk jooju nee nañu ak sopp lañ ko jàppee waaye jàppewuñ ko ne rek dawa war bu ñu nee nag ku ñëwoo ci ràññeel nga war a wuy ji am na ay sart yoo xam ne mooy tax wuy ji ga war ko am na ci sart yoo xam ne sax bu xëttee moom day araam ci moom mu dem ca céet ga ndax sàmmonteeg moytu lu araam moom la ñu jiital door caa teg sàmmonteeg maslaa ni ki bëgg lu neex ka nga xam ne moo woote ñamu céet ga dafxul mafasidi muqaddamun xalaa jalbil masalixi sart bi ci jëkk mooy ki ñu woo mu nar a wuy ji bu demee itam dafa am lor ju metti ju ko fay dal mel ne lor ju aju ci wàllu diineem am ku fa nekk mbaa ñu fa nekk ñoo xam ne li gën a bon te mooy jëw ak wax ci jaambur yi lu ñu war te wax moom lañu fay toogi rek te boo toogee ñoom doo mën a mucc ca loola mbaa sax koo xam ne boo demee na mu lay loree mooy laaj la sa alal boo ko joxul sa alal mu daal di yàq sab der kon sart bu njëkk léegi mooy mu wóor ko ne buy jee ci ceeb bi itam amut ku ko fay lor lor ju metti ci wàllu diineem wala ci wàllu addunaam ñaareel bi mooy bu mu am lu ñuy lal ca foofee ca ceet ga loo xam ne yoon day aaye ku ko lal di ca toog mbaa nga di ca tëdd mel ne xeetu sooy moomu nga xam ne bu dee sooyu cosaan ba araam na ci góor bu ko wóoree ne bu demee fekk ñu lal ko fa te du ca mën a ñàkk toog mbaa du ca mën a ñàkk tëdd ak yu demee noonu nga xam ne kon bu demee faaw mu def lu araam kon du sañ a dem wala ndab yi ñu koy jëfandikoo muy ndab yu liggéeyee ci wurus mbaa xaalis ndabal wurus ak xaalis dañuy aaye ku ko wut doonte sax da nga koy teg ne rek boo ko jëfandikoo teewul yonente bi da ko araamal ca addis kon nag ñu faree indi ay ndab yu liggéeyee ci wurus mbaa xaalis wala ay kaas yu liggéeyee ci wurus ak xaalis ba ci ay kudd sax yu demee noonu nga xam ne daal yoon da koy aaye kon du sañ a dem ca ceet ga doonte sax bu demoon tam moom du lekk ca ndab yooyee waaye dana gis ñu koy jëfandikoo muy lu aay te du ca mën dara rek du sañ a dem nga teg ca mu bañ a am jigéen ju fay way di yëkkati kàddoom di way way yoo xam ne mën naa yëngal xoli nit ñi jëre leen ci mooy ñoom dañu daan takk di wax naa bu fekk kay way bu fekkee ne jigéen la bu dee wax waxu ji ñaaw mbaa woy rekk ci gémmiñam dafa yore jumtukaay boo xam ne fa lay woye mbaa boog ca na muy woyee daal day yëngal xol yi ba mën leen jëme ci lu neexul yàlla kon way yooyee araam na góor du ko saña déglu jigéen du ko saña déglu bu fekkee ne nag jigéen mooy woy te ay jigéen rek ñoo fa nekk te moom day sàmmanteeg teggin ca na muy woyee bu wax wax ju ñaaw warul it benn jumtukaay day woy rek noonu kon dañu ne dañu koy sib rek yem ci waaye du àgg ci araam bu fekkoon ne nag moom góor mooy woy nda jigéen woyut te góor ga na muy woyee nekkul di ca jéem a murmur lu jigéen yorul ba tey benn jumtukaay boo xam ne moom lay woyee kon wayam yooyee mënees na koo déglu duñu ko sib sax ba tey fañuy céetale bu amee jumtukaayu po yoo xam ne yoon da ko aaye da ko araamal ku ñu woo itam doo sañ a dem dana wax nag jumtukaayu po yi nga xam ne sañas na ko faa jëfandikoo yudul yooyu rek deesu ko fa sañ a jëfandikoo ba tey fa ñu wootee xewu céetoo bañ a am ay nataal yoo xam ne yoon da ko araamal nataal ya yoon araamal mooy lu yàlla sàkk mu am réew ñu defar ko ba mu def jëmm ju ne léng mën a taxaw ak boppam bu fekkee ne jëmm ji lépp mat na loolu lu araam la sañe su ko bu amee nag ca fa ñu defee céet ga ku ñu woo itam doo sañ a dem lépp loo xam ne amul réew mel ne oto wala saxaar wala garab ak lu amul réew rek mënees na koo nataal mënees na koo def itam estati muy jëmm ju ne léng waaye nag loo xam ne am na réew sañe su ko nataal ba mu def jëmm ju ne léng ndax la addis ba ne ñi gën a metti mbugal ci bis penc moo ñu daan def lu mel noonu ndax yàlla day wax ne leen def leen ci réew dundal leen ko te duñ ko man moo tax ñëpp maase ci wax ne lu am réew sañu su ko nataal nataal boo xam ne day am jëmm ju ne léng mën a taxaw ak boppam te maan ci luñ ca dara dara bu fekkoon ne ñu koy defee léeg-léeg dañoo nataal jëmm ja bàyyi ca benn xaaj ba dindi benn xaaj ba nga xam ne boo dee xool mu mel ne ni ngay gisee jëmm ji lépp ñëw te fekk na benn xaaj rek ñëw ñu koy rafetale ci yenn barab yi loolu mënees na ko bu ñu xaroon biir ba itam ba ñu def ci loo xam ne daal moom su doonoon luy dund it ñu xam ne mënta dund loolu kon du araam xeeti photo yi appareil yi def nag nga xam ne jëmm ji rek moom lay génne na meloon ñu bari nee ñu moom ayut rawante na ñu ngi ko yittewoo fii mu nekk ci dentité yu ko nuru la koy aay daal mooy photo ca jëmm joo xam ne na mel sañu su koo xool mel ne photo jigéen joo xam ne solo wut ni lislaam diglee ku na solo jëmmi estati yi maanaam nataal yi def jëmm ju ne léegi moom te dañuy nataal am réew buñ ko defee woon loo xam ne bala yàgg sax daal di wow koŋ ni ki ñu defe ko ay xob rek baa ñu jël ay xotti xaal defar caa defar ba mu doon jëmm ju ne léegi ci lu am réew xam ne bala yàgg rek xotti xaal yi daal di wow mu yàq koy du ko tee araam di su ko sañ a xool nee nañu ñàkk gaa yàgg daal di yàqu du ca dara du ko tee araam ba tey nag loolee am ro bu fekkee moo koy dessin ci loxoom nga xam ne mooy jéem a roy yàlla noonu day daal di bokk ci la araam dagam rek mooy jëmal boppam di dessin loolu kon roy yàlla lay doon day bokk ci li araam doon ci sax dañ ko def ci ab miir wala ci kayit nga xam ne nekkul jëmm junne leen ñu mën a taxawal boppam mu ne itam bu fekkee ne fañu woote xew wa daa bari mbooloo lool buuxante bi metti lool kon mën ngaa toog bañ a dem loolu ngànt la su fekkee itam boo demee ngay fekk ñu tëj buntu ba mbaa nga dem ba àgg sax fa fekk ñu tëj buntu ba kon am nga ngànt mën ngaa toog lu may nag du yow lañ jubloo dëngee tëj ga buntu ba def rek ak bëgg lépp tegu ci aw yoon rek a tax te bu la yëg rek da lay jàllale nga jàll kon moom loolu doo sañ a bañ a dem waaye bu la wóori na itam boo demee ba taxaw faaw ñuy diisoo ko xalaat ba xam daañu la ubbilam du ñu la ubbil mooy li mu ne wa indi la mushawaratin kon loolu doy na ngànt mën ngaa bañ a dem ba tey lépp ngànt loo déggoon ne dan la may nga bañ a dem ci jumaa ja mel ne muy taw taw bu bari mbaa yoon wi bari ban boo xam ne booy dox muy summi say dàll mbaa nga ragal ñu tafu sa alal mbaa nga wéradi wéradi koo xam ne mën laa dem mboole mi ñu waxoon rek ci ee tax mën a bañ a dem ci jumaa ja ba tey bu ñu nee wuy ji xewu ci yëpp buñ la wooy ràññee la lu war la itam boo amee benn ci ngànt yooyu mën ngaa bañ a dem ba tey sax bu tase woon ak jumaa ji te mën laa boole dem ca dem ci jumaa ja kon na ngay dem ci jumaa ja te bàyyi xew céet wa ba tey bu fekkoon ne kala woo ca céet ga yow góor gi jigéen la tey du sab araamante yoon araamalut ngeen sëy mbaa céet ga dajul céetu jullit doon sax yow kala woo jullit da waaye kay céetal moom du ab jullit mbaa kër ga daa am xaj boo xam ne yoon may wut ku ko wut xaj bi yoon maye ko ko wut moom mooy boo xam ne da nga koy sàmmloo kër ga mbaa nga di ko rëbboo ji ca àll ba mbaa mu lay sàmmal ak jur ca àll ba xaj ma noonu moom mu ne kër ga du tee nga war a wuy ji xew ci yet wa waaye nag waaye nag xaj boo xam ne da tax ñu wut ko rek mooy xaj moo leen neex sañu su ko lu araam la te kon bu amee ci kër ga ceet gaam doo ca sañ a dem mu ne nag buñ la wowul ci xew ceet wa dana araam nga dem boo demee ba àgg itam te mayuñu la nga jàll ca biir boo jàllee ca biir muy araam boole ca boo lekkee mbaa nga naan foofee ci ceet ga itam te amoo ci ndigalit mu doonati lu araam nga xam ne kon bu boolee dem te wowuñu ko ak lekk ci amu ci ndigal dana boole yaar yu araam bu demoon ba àgg nag te kenn woowu ko nakam am dina ko jàll sil nag joxo itam lekk ne ko lekkal kon jëmmi yow ga rek mu araamoon waaye nag jëmmi jàll si ga lekk moom araamut nee nañ nag kañ woo bu dee kilifa goo xam ne xam ne ni faaw bu dee ñëw du ànd moom dong kon ku ànd ak moom it day mel ne kilifa ga rek ak ñëwam aayut ak lekkam fa dara itam du aay mais nag sib nañu ñuy joxe foofe ci céet ga loo xam ne dañ koy giiroo moo xam miskit la moo xam tàngal la moo xam beñe la lim doon loo xam dañ koy giiroo rek sib nañ ko la baax daal mooy ñuy teggat di joxe jox kee jox kee jox kee te bañ a am giiroo bu giiroo ba àggee nag ci am ko fab dara ba noppi keneen di ko foqar ci ci loxoom moom foqar ci boogee ci loxol kookee di àgg moom ci araam di rek ci sib kon moo xam fa ñuy mayee sëy ba la wala ca ceet ga mbaa ci beneen xew-xew lañ fay joxe ci loo xam ne luñ mën a giiroo la buñ ko bàyyee ñu koy giiroo rek te kenn du foqar ci la moromam yore def na lu ñu sib buñ àggee nag ci ñenn ñuy foqal ci seeni morom lañ yoroon mu daal di araam la gën daal mooy lu mel noonu ñu koy joxe joxe boo xam ne kenn du ko jiiroo fii nag lay waxe xeeti jumtukaay po yi nga xam ne mënees na ko jëfandikoo ci ceet ga te du aay mooy am ndënd mbaa tabala tabala mais muy lañ foor yaari yet yëpp moom arwisaala daa waxoon ne wóote nañ ca waaye moom mi moom da ko yemaleeg ndënd mañ foor ci genn wet rek ne dagan na lislaam day bëgg buñ mayee ab sëy mu siiw ba ñu bare bari dégg ko te yooyu jamono jaxasoo bi yombi wutoon noona moo tax addis ba digle woon na ne fu ñu defee ab sëy nañ ko defee ci jàkk ja te tëgg aw ndënd ba mu siiw aalinu hada nikaaha wajxaluhu fil masajidi wadribu xalayhi biddu fuuf ak addisu faslu ma bayna al xalaali wal xaraami ad dufu wa sawtu fi nikaax axrajahu tirmisiyu fi nikaax kon muy ca maye ga muy ca ceet ga duñ aaye tëgg ndënd moo xam ne duñ ca boole pomu aay te du am jaxasoo góor ak jigéen mu ne nag sib nañu li ñuy wax azzamaratu toxura wala li ñuy wax salimo ak li ñuy wax sifflet mbaa caléron yooyu bu fekkee ne nañ koy fooyee ëpput ba yàqal ña fa nekk dañ koy sib rek yem ci bu fekkee ne dañ koo bari lool lool moom mu daal di àgg ci araam loolu mooy xeetu jumtukaay yi nga xam ne ci lañ may ak jàppandal lu bokk sa yooyu nag ci xeetu jumtukaayu po yi dañ koy aaye di su ko saña jëfandikoo daa mel ni bokk na ci li mata moytu lool lool li ñu wax xaxar xaxar moom dañ ko daan defee ci cosaan da daan ñaaw lool di ca tudd ay baat yu ñaaw di ca waxaale nit loo ko bëgg a waxaale te mënoo ko koon wax mooy li ñuy wax bàggaale ca say soxla moo tax xaxar moom mat naa moytu lool lool ñeneen nag bokki taalibe bi am nañ ci ñoom pexe dañuy def rek bu seen bokkum taalibe bi dee am gan bu gan gi agsi rek ñu daal di gaaw ñoom tàmbali yëkkati xasida ca kaw li kaw mel ne kon ku fa bëgg xaxar itam kenn du la déglu li ñuy wax nag fecc fecc moom dañ caa wóote am na ñu ne fecc lu ñu sib la am ñu ne ayul dara nekku ca am ñu ne bu dee nit ku baax ku ñu wax lu ko tax a bëgg moom bu feccee itam du aay mel ne jaafar ba mu bàyyi ko xabasha ñëw fekk yonente bi bàyyi ko xaybar te am ngañaay lu rëy rëy ci xaybar yonente bi dana jaafar xawma daal gis bi ma la gis nga dellu si ak li ma yàlla defal ci ngañaay fii ci xaybar yooyu yaar xawma lu ma ci gën a déggee ci ñoom ñaar ne ko it ashbahta xalqi wa xuluqi ak ma nuru ci bindu nuru ma ci jikko nañ booba jaafar dafa bërëbëb ba fecc ñu ne kon nag waaju baax bu déggee lu demee noonu xanaa bu amee xibaaru mbégte bu rëy rëy tax koo fecc du wàññi dara waaye nag jigéen di fecc ay góor di ko seetaan rawante na xeeti fecc yi nga xam ne lu wërta feeñ day feeñ mbaa lu wërta yëngutu di yëngutu moom dañuy wax ne lu araama araam la